la amay ne la bi ci wax ak taal bi léegi rek nga gis ñu dañoo tëj nii taxaw ci buntu place bi waaw